gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ As Ndaw Ndoukoumane ak mbooleem ñi génnee daaray Koki ñooy am mbégte di leen yëgal ak di sàkku seen teewaay ci xew wi jëm ci lancement officiel projet bi ñu duppee Wajaahidu dañoo am benn sas fan ci weeru avril 2023 lay doon ci Grand Théâtre National bu Ndakaaru képp ku yàgg suivre débat religieux yi am ci télévision yi lu mel ni Lamp Fall Touba TV ak yenn ak geneen danga ko gis muy boroom xam-xam di ko jàmbaare kon balaa Serigne Souhaïbou yi bu sëriñ Mbacke na jox la nga tënk kàddu mbooloo mi ci minute yu gàtt comme Serigne bi dafa bëgg a ñu mën ko yeewi mu dellu ci tey. deme dafay jaadu ay nit boo leen woowee ban ñëw nga xamal leen ñi leen woo ñooy ñan ak lan moo leen tax a jóg bu ko defee ku doon laajte loo xam ne leeru ko. dana ko leer ku ko xamoon itam dana gën a xam bu si bëggee bokk wan yoon euh, lay jaar daanaka loolu moom mooy sababu ñuy yëkkati kaddu waaye li jëm si wàllu conférence bi lépp incha allah jëmm ji koy def mi ngi nii muy sëñ Gana Mesere di tem boo xam dañ koo tànn muy Cheikh Issa Diène ak tarbiya te rafet nan njort ni danañu si andi loo xam ni euh, danañ ko mën a yóbbuloo ndax doomu aadama dafa mënut a dund te amul ab yar ñaar ñi itam bu ngeen gisee ñu lëkkale leen ñaare du du asar ndax li si ëpp ñi nga xam dañoo jamonoonteeg ñoom bu ñuy wax dañu leen di boole ay wax ndax bu siñ bay jaxate ku wax lëf si Issa Diène ba bal la faali lu dul ñoo ko gëm sab sëriñ daal di miimi loolu bari woon nañ li tax mu tudd leen ñoom ñaar lëkkale leen ci aw bayit kon dafay wane ne ñoom ñaar am na jigee goo xamante si ni amoon na seen seen diggante waaye nuróole woon nañu itam ay pas-pas mbokk bi wax na ko léegi itam ci marché bi nga xam ni euh, bay Moussa Ka def na ko ci sëñ Balla Faali dina Sëriñ Tuubaa ne seex ya woon fa Jurbel na ngeen dajaloo tabax jumaa bi ali maam na ngeen dajaloo tabax juma te ànd koog njaboot gi daan ne Sëriñ Isaa ko nu murit saadix la wa sayxu madu ndumbe dolli sa balle faali gis nga ñoom ñett ni leen tegalee édition daaw bi jamee bi Euh, sëñ ndumbe la jëloon ren jii ñu jël sëñ la fale kon loolu dafay tegtali ni ñoom am na lu nekk seen diggante loo xam ne leeral ko dafay jaadoo te it ku ne xam na ni moom la sëriñ bi tànn joxoon ko ndigal mu leeral mu joxe ndigal li jëm ci màggaluk Touba waaye bu leen fàtte itam képp koo xam yaa ngi diglu waxtaane mu Mouhamadou Lamine Bara jenn ibnu Cheikh Issa Diène ci yenn waxtaanam woo xamante si nee na nee na Cheikh Issa moom ma nga woon sa jataay ba dem na di seeti Cheikh Mamadou Fadil nee na Cheikh Mamadou Fadil daa wax ni na ngeen bàyyi saa saa bàyyi Issa ak ñim àndal mu wax mu baax ma diglu ko bu baax ba mu ñëwee lu mu ko wax mooy biñ diisoo si màggal gi dañu ko màggal gi day sa waajur moo ko digle woon ñu di ko def kenn ku ne di ko def fam nekk waaye dama bëgg nga woote ko Touba soo ko wootee Touba dinaa ñëw te su ma ñëwee penk ak soow daneen ñëw kon gis nga ni ni ko ni mu amee woon ndigal ci Serigne Touba tey li tax ñu di ko defee Touba itam Cheikh Mamadou Fadil Cheikh Issa Diène la si diisoo ba tey jii ñu di ko def te diisoo googu itam gis nañ ci am mbindam mu ni da koy def ngir roy Serigne Touba ndax maam Cheikh Issa Diène ku Serigne Touba daa diisoo la ngir am xelam mu rafet bu ko defee yooyu ay bind la ñoo xam ne mag ñooñu ñuy tudd di leen tuddi ay bis dafa am ak jege gu amoon seen diggante tax ñu di ko leeral mbooloo mii nag nga xam ni moom moo yàlla dogal mu taxaw ñu tudd taw di wa nasri li indiasad maam Cheikh Issa Diène mbooloo moo xam ne yitteem mooy leeral ak tasaare liggéey bi nga xamante si ni maam Cheikh Issa ah, liggéey na ko nekkul nag loo xam ne dañoo jékki-jékki rek xalaat ko waaye ndigal lañ si am loo xamante si ni itam si Serigne ab Serigne Abdou Latif mi fi nekkal maam Cheikh Issa la bàyyi ko te ku ne xam na laa tafaalu shay'an bi gayri isni fal isnu shartun fi qabuli sha'ni am murit moom munta engagé wu di jëf dara da si yaakaar tuyaab wala mu sax te amu si ndigal ginnaaw bi nga xam ne joxe na si ndigal itam daa wax ni na ngeen ko yaatal fuy ab buntu kër ci seex si wala ay taalibe na ngeen fa dem leeral leen mbir mi te ànd kook ñoom waaye nag ba pare nag dénk ñu si nag ni waccal aqaayidi mu nawaraati wacal bi kulliya sa xayraati bayit woowu la jël nga xam ne kon mbir mi même mu la ko dénkee muy ndigal la sa gën a am solo te di ko doxal moom mooy pëstef bi nga xamante si ne moom moo koy lal jambien bi lan mooy yitteem mooy fexe ba jeexit yi nga xamante si ne mag ñi àndoon ak Serigne Touba jëf nañ ko ba wan ñu ginnaaw ñu jéem koo sulli leeral ko jéem saa teg suñu tànk ngir ñoom itam sër ba xam ne am teggi woon nañ ko buñ ko mënut am ñu bañ a mu jépp sa bi mu réer loolu si sabab yi la bokk bunt bunt bi ñu si bokkee itam nekkul lu tëju képp koo xam ne xam nga si kenn ku la leer ku si mel ni sëñ Ibrahima Bey wala sëñ Cheikh Dieng mi nga xam ne moom moo ko jiite wala sëñ Abdou Salaam coordinateur ñi ngeen di gis ñëpp koo si lëkkalool wala nga déggante ak moom mën na laa wax mbir mi wan yoon la ñuy jaar ngir bokk si mu nekk itam loo xamante si ni lu ñu nosa la nekkul loo xamante si ni dafay dafa nekk lu vague loo xam ne dangay ngay liggéey tey doo xam foo tàmbalee boo doo xam tàmbalee waaye mbir la moo xam ne dafay dox di jëm si kanam ñu nosu ko ndax dañuy wax ni ay caaxaan yu ñu organiser sax mbokk yi moom moo ëpp doole dëgg koo xamante si nii ah, kenn organiser wu ko dañ ko bàyyi muy dem te mboolem yi ngeen di gis nii muy xamle ku baax yi ñuy def ak documentaire yi si ajoog yépp jubluwaay bi du dara lu dul problème yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy dund si jamono yi ñu toll nii ñu jéem a xool wan yoon lañuy mën a jaar pour dindi jafe-jafe yooyu. ndax ñoom bu leen fàtte bi ñuy ànd ak Serigne Touba ci jamono yu metti lañu àndoon ak Serigne Touba jamono yu xat yu tar mboolem dëkk yi ngay dégg yëpp si lañ ko taxawale ànd ak ay jafe-jafe nag léegi nag ñun ñu ubbil ñu bunt yëpp ay jumtukaay am ay moyen am xel am ba pare nga gis ni jël liggéey bi yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu toujours dafay des kon lan mooy jafe-jafe bi ndax am nañ référence nag waaye nag la see gën a amati solo nag tey bu fekkee ñu ngi waxtaanee sëñ Balla Fally Dieng wala ñuy waxtaanee Cheikh Issa mbokk yi jubluwaayu waxtaan wi du dara lu dul mooy jikko yi nga xam ne amee woon nañ ko ñu jéem a xool nan lañ koy jëlee def ko suñu bopp. waaye ku ne xam ne nit ñi amuñu jot wooy leen Touba ñu jógee seen réseau yi ñëw toog yendu lekk naan yaakaar naa fu ne mën nañ ko faa defee li si gën a am solo mooy lan mooy mën a dundal seen ruux ndax tey mën nañ fee jëlee bind boo xam ne danañ si mën a dox ba déwénaat ngir mën see gàggantiku wane seen i jikko te ku ne xam na ni ñoom ñëpp koo ci dégg ay jikkoom da nga xam ni kilifa la ku si mel ni sëñ ma yaasin umi xam nga yàggee na dégg li ñuy wax sëriñ isaa xad kaana fi naasi mahmudan sajiyatahu wa fi samaati maarufan wa manuusa kooku nee na nit la koo xam ne ku jamonoonte ak moom xam nga jikkoom ci rafet ku jamonoonte ak moom xam nga ak tabam ku jamonoonte ak moom xam nga ak lawetam ku jamonoonte ak moom xam nga ak njàmbaaram aku fitam ndax loolu dañ koy jël bàyyi ko mu nekk si moom rek wala dañ koy jël natt ko def ko am bu sol ko ngir ñu itam mën a jéggi jamono ji nekk nii. ku ne xam na ni macha allah njaboot gi goo si tudd yàlla def na fa barke njaboot gaa ngi fi waaye tey booy xool réalisation yi ak jëf yi da ngay gis ni nam war a doxee dëgg-dëgg boo ko natt da xam ne ak manqué daf say am. te loolu nag la ko ma la sa gën a mën a dimbali mooy nit ñi suudewu doon benn mu kër goo si dem. bu fekkee am nañ ab nosu nosu nañ di xalaatandoo di joxeendoo ay xalaat am benn yitte muy yëkkati kër ga waaye nag am yéene ju sell akuk dëggu jàpp naa ne jafe-jafe bu ñuy gàllankoor du am ndax ñoom bu doon aw yoona dañuy wax ni rëdd nañ ko ba mu set lépp lu fay gaañ dindi nañ ko nettoyé nañ ko lan moo ci dese ñun mooy jaar fa rek jàll kon ñoom waxtaan wi ñu leen di waxtaan loolu rek moom mooy solo si kàddu yi nag loolu rek moo doon jubluwaay bi ñu xam ni ñi leen fi woo mooy jamiyatu tawdih wa nasri li injaasaat maam Cheikh Issa Dienne mbooloo moo xam ne li yitteem mooy leeral ak tasaare jëfi Cheikh Issa Dienne ak itam képp koo xamante daa jamono te moom ñuy lëkkaloo di liggéey Serigne Touba ndax ñoom lépp lu ñu am ci Serigne Touba ci xidma lañ ko amee Serigne Touba itam lépp loo xam ne séddunoo ko ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci liggéey la ko amee xidmatu na alamina salabat liyal karamaati ma fan salabat la na mboolem luy taraanga nee na wammatu na ñëw ñëw si man fan laa ko jëlee ci liggéeyal Serigne Touba maam Cheikh Issa Diène ku kone xam na ni ak cër bi mu am waxoon nañ ko keroog ni la bi mu ñëw si Serigne Touba ñi ànd ak moom ñëpp xam nañ ko waaye lan moo taxoon jëfam mënul woon a jéggi mooy daal liggéeyul woon kilifa ak kon loolu bind la boo xam ne ko ñëpp bàyyi xel jafe-jafe bi nag mooy da ngay gis ni léegi nit ñi dañuy teel a wàcc nit ñi dañuy teel a wàcc dañuy xëy daanaka xëyagun sax bëgg a wàcc loolu ay jafe-jafe lay jur moom kat wax na ne si jamono Serigne Touba sax Serigne Touba daana toog muy yéeg si ay senge di daaj ba tëccu ba se ba sëñ bi naan ko kaay ko comme teggi woo sa laxasaay moom du ma teg sama laxasaay ñooñu leen doon roy di leen bàyyi xel jàpp naa ni duñu musa duñ dellu ginnaaw te itam maanaam jafe-jafe du am yi nekk suñu kanam di nuru ay jafe man jàpp naa ni du jafe ndax kattan gu ko mën a dindi mi ngi fi ñaan gu ko mën a dindi mi ngi fi waaye nag bu la yàlla joxee lépp itam nga mel ni kuy nelaw itam day mel ni dara nekku fi waaye mel na ni buñ gën a yeewu gën a jàppante gën a joxante loxo gën a wóolonte boole googu yéena ci seel akuk dëggu jàpp naa ne fuñ bëgg a jëm ak fuñ bëgg a àgg mën nañ fa àgg ndax benn jafe-jafe du am ndax Serigne Touba nee na yàlla jox na ko lépp kon jame yodu taw di mi ngi sant mbooleem ñi nga xamante si nii ñëw nañ fi ak ñi bëggoon a ñëw te te amuñu amuñu ak jàppandiwul ñëpp jàpp na ne ñoo bokk liggéey bi ndax sotti si ak def si rek la waaye képp koo xamante ne daal am nga pas-pas ngir bokk si liggéey bi bunt bu ubbeeku la bunt la boo xamee ni kenn tëju ko jafewul nit ki bu si bokkee itam lépp lu mu décidé wala mu xalaat ko benn xalaat doxut ñi si nekk ñëpp dañuy weccoo ay xalaat xool ba xam est-ce lii moom moo gën si kër gi wala est-ce que gënul si kër gi bu gënee si kër gi ñu jox ko ay kilifa ñu saytu ko ñu doog koo wéral kon damay jàpp lu mel noonu bu amee fekk yeneen i kuréel bu si nekk warees na ko mën a dooleel jàpp si dooleel leen bàyyi leen xel ci wàll yëpp nag ndax mbooloo moom ñii dañuy yor doole ñii yor xel ñii yor ay moyens ñii yor ñaan waaye lépp moom bu dajee rek incha allah ak jàppandil mën naa am kon foofu la ñuy yemale suñu kàddu di ziar ñëpp di jéggulu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mbacke Sourang doon wax ci kàdduk mbooloo mi kàddu yu leer na am na solo ba tey ñuy fàttaliwaat mbokk yi rek nii ñu soxla ci carte de membre yi mën nañ dem fële ci table ji ci ginnaaw ak kart barkeelu yi dinañ joxe léegi nag téere yi nga xam ni moom la ñu baaxoo joxe at mu nekk ñu bàyyi ci xel bu baax a baax defe naa moom la jàmbaar ji di dajji ni ngir mën koo tasaara ci mbooloo mi euh, téere yi nga xam ne itam jaar-jaar yi maam Cheikh Issa la sama cameraman mu xëccal ma téere bi bu baax ba gaa yi mën ko gis sëñ Mouhamadou Lamine Dieng moom Cheikh Abdou Salaam moom Cheikh Issa def ko muy jaar-jaar yi maam Cheikh Issa Dieng ci wolof wesar ak woy téere bi mi ngi nii ku ko soxla itam mën nga dem fële ci taabal ji ci ginnaaw. muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu